asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah mardi 24 septembre 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu làmb la wala fa nga xam ne nii moom moo di ca Leewtoo TV bu dee yëglikaay bi du sunu làmb la nag moom tey li mu ñu xëy wan mooy Balla Gaye numéro 2 boo xam ne nii mu nga raf sa bokk ba weexal ko tàll fas kanam nga ñàngal ba mel ni daal gaynde gañ koy wooye waaye ka mu làngal nag mu jàkkaarloog moom di ko xool-xool bu doy waar moo di Eumeu Sène moom sukk daal di jël sënoon teg ca suuf yor ak sa ñooram di ñaan mu mel ni kii nag fi mu nekk ni yëglikaay bi ne na li leer ba leer day bu dee waa kër ma seen ci kàddoog la njëng dañoo xëyoon taxaw ne pare woon nañu wala boog pare nañu ngir jàkkaarloo ak Balla Gaye numéro 2 moom mu mel ni ki nag sunu làmb ne na li leer ba leer waa kër Balla Gaye 2 moom staff ba ne nañ leen déet loolu moom bu leen ko wax defuñu ko tey suba waxi noppi bëriwuñu aji yéen ndax yéen bëgg ngeen bëre ak ñun suñu làmb xëy tey wax ñu ko maanaam daal estafu Balla Gaye numéro 2 moom lànk nañoo kandaare rejeté nañ ki nga xam ne moo di Eumeu Sène yëglikaay bi di làmb moo xëy tey di ko wax ñii moom rejeté wu ñu waaye daal la ñu bëgg la ñu wax muy ñi nga xam ne ñooy promoteur yi ci ñiital Pape Abdou Fall mooy seen président moom nag daal teg nañ ci taabal yi seen ay revendication wala seen ay bëgg-bëgg wax ko ñi nga xam ne daal moo di CNG rawatina saison bi nga xam ne ci leen jëm di 2019 jàpp deux mille vingt promoteur yi moom wax nañu la nga xam ne daal moom la ñu bëgg waaye CNG itam daal daa mel ni fi mu nekk nii saison deux mille jàpp deux mille vingt yi daal la mun na day mooy ay mesures yoo xam ne daal yu tegu ci aw yoon wala yoo xam ne daal dina amal làmb njariñ daa mel ni ca lañ taxaw ngir fas ko yéenee doxale nag at ñi nga xam ne moom lañ jëm waaye ka nga xam ne nag moom moo di kii nga xam ne nii day moom moo di ki nga xam ne mooy directeur cabinet wu ministre daal la mu wax di Ibrahima Ndaw moom mu ngay rafetlu la nga xam ne am na nee li liñ ci wax li am ba solo daal te am solo mooy nañu fexe lépp luñ ciy def daal mu nekk njëriñal lamb waaye tamit nekk nekk njëriñal ñi nga xam ne ñun ñoo di mbër yi moom mi nga xam ne nii mooy directeur cabinet ministre des sports daal loolu la xëy wax ci yëglekaay bi nga xam ne moo di sunu lamb ñii moom loolu ci mën a dégg seen ab saison daa mel ni baax na muy waa bawal yëglekaay bi di sunu lamb xëy tey wax ñu ko wan ñu wulli ak kéwél yëglekaay bi daal nee na boo bëggee dégg-dégg moom waa bawal day am nañ dix-huit combats am douze victoires ak six défaites yëglikaay bi moo xëy tey wax ñu ko mu mel ni ki daal ki nga xam ne nii day moom moo di wulli de ak kéwél daal seen écrit boobu moom mu ngay dox donte ki nga xam ne nag moo di kéwél sax ñàkk na ab kombaam waaye terewul nag écrit ba mu ngay dox ki nga xam ne mooy wulli de moom dafa woon ambulance lu doy doy waar daan ko jël bu rëy rëy rëy waaye wulli numéro un loo ci mën a dégg dafa assuré ci Gambie ñëw ko boole ci ak nag yor bës boo xam ne ci réew mi moom ña ko yor bariwul ka nga xam ne tamit ab xale la nekk ci ba ñu naan ko carrière moom loo ci mën a dégg day moom ñaari combat mu def daal ñaari ndam la ca am moo tax yëglekaay bi ne moom ay mbiram day wala carrière am mu ko bëgg a teg ci fii nga xam ne moo di aw yoon keneen koo xam ne moom bilaam dafa xonqul ñuul wala saful su ko saful xorom moo di kii nga xam ne moo di kéwél de moom benn ndam la am ak benn defet yëglikaay bi moo xëy wax ñu ko buur siin moom kii di maama Lamine moo ko taxawloo dal di ko luppe luppe bu doy doy waar ginnaaw nag ba mu nekkee ci ab lancé moom daa ñàkk li nga xam ne moo di kombam waaye booy jaan booy jaañ caatu jokkaan ga ak bada bukki moom ñoom daa mel ni day buñ dee ay xale daal ay xale lañ ñoo xam ne day ñu nga bëgg teg seen ay mbir ca yoon yëglikaay bi ñëw na ci ñoom waaye ki nga xam ne moo di ngooñaal fay moom yëglikaay bi talaa boo xam ne day bu athlétique boo xam ne bu assuré la loolu la ko tudde mu mel ni ki daal ko kon li leer ba leer day écrit boobu moom loo ci mën a dégg ñu ngay dox bu baax a baax a baax waaye takk ci rib ak ki nga xam ne mooy Boule Balla Ramdan numéro 2 ñoom tamit day ay xale lañ yoo xam ne day jar nañoo bàyyi xel yéeglikaay bi di su làmb daal tey moo xëy ñëw ci écrit bawal ka nga xam ne nag moo leen di tàggat di seenub entraîneur di Fallou nga moom la mu xam ne day nee na bii bilan moom loo ci mënti dégg daal bilan la boo xam ne baax na lool lool lool entraîneur ba moo xëy ñëw di wax leneen loo xam ne tey ab jafe-jafe la wala mu di problème mooy ci diggante ki nga xam ne moo di lay njaay ak idaal idaali ñi ngi ci benn mbër boo xam ne day kii nga xam ne nii day moo di lay njaay da koo tëgg muy Mamor doomu Faas diggante ma ki nga xam ne moo di Sidi jàmm gën te ñu déggul fi lu jiitu lool nekk kii di idaali mi ngi day tëgg na combat Mamor ak xale boo xam ne ni mu nga nekk ca école de bi nga xam ne moo di fàllaay yëglikaay bi di suñu làmb nag nee na Mamor est-ce que kon divisé wul wala boog ñu xàjjale ñaari promoteurs yii yëglikaay bi di suñu làmb xëy tey ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu waaye leneen loo xam ne nii day gis nañu ko fii nga xam ne nii day moom moo di ci yëglikaay bi mu mel ni ki nag ki nga xam ne nii day moom moo di Saliou Diouf day dafa ñàkk muy juróom wu jigéen di Angélique Tening Diouf Saliou Diouf nag ci amateur lutte simple yi la bokk kon li nga xam ne ni daal moo di yëglikaay bi xëy na ñëw di ñu tàgge wuy juróom woowu ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko te jéggal ko waaye leneen loo xam ne mu nga ca Leewtoo TV mu di ki nga xam ne moo di xoyantaan moom daal fa la xëy attaqué na fa ki nga xam ne moo di Modou Lo nee na ñu fay bor bi ndax nag dañ koo jàppale woon ci combat bi moog estafam xoyantaan ay wax bàyyi ma njoon moom daa jàpp ni day moom kuurul la ko xoyantaan jàppe ba tax mën a yëngal mënu ko koo def te buñ ca yeggee dina xam ne lépp dëgg la loolu mooy waxi xoyantaan mu mel ni ki daal moom roi des arènes roi des arènes nu Gambie bi daal fi mu nekk nii moom loo ci mën a dëgg day ah mu ngay woon boppam waa Sénégal ndax nag mu ngay wax ak moom yëglikaay bi moo xëy ñëw wax nu ko waaye li ma leen di xamal daal ñu bañ koo fàtte te bañ koo jaawale muy ajjuma jiiru di ñëw la 27 ci weeru septembre fa nga xam ne mooy ca Masaalikul Jinaan di jumaay ju mag ji nga xam ne moom la ubbi fii nga xam ne mooy ci Ndakaaru waaye nekk nag ci diggante Kolobaan bopp ak dëkk ya ko wër mu mel ni ki daal loo ci mën a dégg magi Sénégal moo xam suñu magi lislaam yii day ak fu ñu ci mën a doon daal daa mel ni day amee nañ leen njukkal de ndax nag bay nañ seen waar kon ñi ñun ñii fi des yal na mu yàlla dimbali ba ñu bañ a mujj pousse bi muy wër yàgg maar waaye dama ko waxoon démb rek laa koy waxewaat tey xalifa yi moo xam sëñ Muntaxa ma ca Touba sëñ Mbay Si Mansuur ma ca Tiwaawoon ka ca Léona ka ca Medina Baay ka ca Ceneba ak fu ci xalifa mën a nekk rek ba ci ki ñëpp ba ca kere ceeba yal nañ fi yàgg te gudd fan te wér lool yàgguñoo digal ñuy jëfe te dañu tere ñuy bàyyi. moo ko waa Leewtoo TV nu leen di gërëm di leen nuyu di leen sant Babacar ngeen àndaloon ci revue de l'arène bi nu ànd ak yéen nag ci jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di di la maa ngi lay fay ndeykum di nuyu internet yi di leen ger di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom ah di leen ballu àq bu baax a baax a baax di ñaan jàmm daal yàlla na ko yàlla def ci àddina bi waaye tamit rawatina sunu réew mi nga xam ne moom lañ dëkkee muy Sénégal te amuñu lenn lu dul moom. Amin Babacar Babacar nag tey nag ñu ñëw ak sunu laam sunu laam nag ñëwaat na si combat bi nga xam ni moom la ñuy laam-laame fan yëpp diggante Eumeu seen ak Balla Gaye su fekkee ne euh, lajaan génn semaine passée wax ni que Eumeu Sène maanaam écuritage nga d'accord na pour bërewaat ñetteelu combat moom ak euh, Balla Gaye Balla Gaye nag tey staffam dafa génn sunu laam wax ni ñoom daa bëggatuñu troisième combat boobu Babacar muy lu doy waar. ah yéeme na de waaw loo si mënti dégg daal comme ni ñu ko xamee woon keroog njàngum sunu làmb la njàng bu porte parole taay nga génne ko ñoom pare nañ ngir bëraat ak Balla pour troisième combat hmm. tey nag hmm, comme li ma waxoon rek laay wax làmb la sport la yaa ngi dégg des fois damay dégg suma papa Max Mbargane muy wax ne que bu ñu la séentoo fit nga fital bu ñu la séentoo fital nga fit loolu maanaam signalé gauche wala signal droite jàdd gauche staffu Balla Gaye tey ñu ne ñoom bëgguñu ah waa xëy na. la tax ñu ne bëgguñu ñoom xam nañ ko wala position ba ñu nekk moo tax xëy na kon ñu ne bëgguñu waaye tamit dafa am loo xam ne nii dafa jar a gën a leeral jar a gën a topp mooy la moom moo wax ndax li mu wax noonu la demee wala boog Eumeu seen moom moo wax parce tamit loo ci mënti dégg Eumeu Sène mooy bëre. ndax Eumeu Sène est-ce que moom moo taxaw ne daa war parewaat pour bëre ak Balla Gaye loolu tamit dafa jar leer lu jara a lijjanti ñu nag lépp lu ñu ci mën danañ ko def pour lu ci war a leer rek gën a leer yaa ngi dégg mais loo ci mën di dégg daal waa kër Balla moom ne nañ doy na ñoom ne nañ doy na sa troisième mu ñu quatrième mu ñu waaye loo ci mën a dégg daal làmba ngi noonu daal li ñu li li li liñ ci wax si nekk rek du biir daal mais day xëy rek wasin

mel ak Eumeu ci li ñu ci li nga xam ne nii xam nañu ko yaa ngi dégg amoon na ci diggante Tafa Gueye ak Moussa Ñing waaye diggante Thierno Gueye ak Balla Gaye wala Baye Ndiaye ak Balla Gaye da nga koy gis ci Lac de Guiers ak keneen boo ñaa ak keneen noonu lay demee Modou Lo tamit boo gisee Papis wala gis Serigne Ndiaye di nga xam ne Modou Lo soreetul wala Ibou Laye parce que ku ne am nga say homme de confiance xëy na foofu la ñuy wax c'est euh, loolu ma xaw ci avance tuuti mooy euh, xam nga Leewtoo ak Lutte TV ñoom dañuy def lamb 100 pour cent te Lamine su ma jumul dañu waxtaan mu ne ma jël na la njëng mais la njëng dafa di wax ju mel noonu yaa ngi dégg kon loolu nag su amee ah moo tax mais nag lu mu ci mën a xew rek wax ji moom jóg na journal bi bind na te yaakaar naa na loo xam ne. kenn du ko waxal magum yàlla jëmm te amut lu mu ca def wala mu wax ca dara waaw Babacar kon book yow ak sa équipe war ngeen fa doxantu dem xooli la jaan wax leen xëy na boog lan la lan la wax carrément diggante combat Eumeu Sène ak euh, ak Balla Gaye boobu noonu nu dem nag si euh, nu des toujours si euh, AG d'information bi nga xam ni amoon na samedi bi passé si arène nationale journal mi ngi wax nag ni six revendication yi nga xam ni promoteurs yi teg na ko pour ren saison bi si ubbee CNG war leen si mën a dimbale ba si njëkk maanaam nee na suñu daggatee mbër xaalis li ñu dagg mbër bi nekk cinquante cinquante beneen bi mooy nee na nu ubbi leen arène nationale euh, stade Iba Mar maanaam nu fay tëgg combat yu bëree nu bàyyi arène nationale parce que arène nationale yooyu dafa cher ndax nee nañu un million nga joxe wàllum sécurité mi deux cent cinquante mille wàllum organisation mi deux cent cinquante mille sans compter frais d'organisation yi nga joxe lépp soo ko boolee muy muy muy muy un million nee na combat yi ndaw yi tamit nu yokk leen ko jóge dix dem ba dem ba quinze nu wàññi leen temps de Euh, kii nga xam ne mooy Pape Abdou Fall euh, président des euh, des promoteurs wax na ko si si nga xam ne mooy journal suñu làmb Babacar. waaw promoteurs yi moom comme li ma wax rek ñoom ñooy bayeru làmb ji man dama leen di ñaanal chaque jour que ñuy di tëgg làmb mbër yi di bëre yaa ngi dégg parce que ñoom su ñoom pour man làmb du am parce que gisaguñu ñeneen ñu fi ñëw di tëgg làmb ñu dul promoteurs yi kon yàlla ñuy am lu koy defe am nañ droit tamit joxe ay revendication kani comme ñoom ñooy fay kase yi bu ñu daggee mbër mi ñu xaaj mbir mi bu dee cent la ñoom ñu jël cinquante CNC jël cinquante loolu tamit seen lu ñu wax la loolu nag dañuy xool ñoom ak CNC loola nu ñu koy régler parce que loola ñoom ñi ko seq ñëpp war nañ mën a toog waxtaan ci temps de combat yi tamit keroog jàq si jot na ci avancé loolu lépp tamit lu ñu war a mën a waxtaane la parce que li may wax rek la ñu bokk teen la ñoom ñooy laxasoo ay goj parce que CNG pour man lu doxal làmb moo la ko fi nekkal moo ko fi bàyyi te pour man euh, lool ci lool lay dox te yaakaar naa ci la war a mën a dox promoteurs yi tamit sujul ñoom làmb ji du am kon defe naa revendication yi ñu leen tegal moo xam yokku ko yeeg xaalis ba mu ñu dagg ak yeneen ak yeneen ak yooyu ak bàyyi Ibamar Diop muy fonctionnel arène bi di fonctionnel loolu yëpp jar na xoolaat et puis tamit fere bi ñuy fere arène nationale tamit ah bu ñu xool ko tamit bu dee laaj na laal pour ñu mën ko wàññi pour nga xam ne ku ci tëgg di nga gis sa bopp it dafay am solo souhaité wuñu kenn ñëw si làmb tëgg perte ndax bu loolu bu amee amaat dootoo ñëw yaa ngi dégg te bu keroogee day indi benn chômage ci dëkk bi boo xam ne ni ci côté làmb ji du du am njëriñ bu ñu sañoon képp ku ñëw rek la la tax ñëw boo ñëwee di ca gis dara même boo sax amul bénéfice mais la nga dugaloon ndey kumba nga jotaat ci. waaw ñu des toujours si wàllum AG boobu ne kii nga xam ne mooy Alioune Sarr bu débat yi jeexee am na ay recommandation yu mu joxee benn bi si njëkk maanaam nen dina seet daal lu ñu bëree mbër yi lu ñu mënee sol comme defee protège dents ñu solee ko ay gants yoo xam ne dafa approprié pour pour bëre làmb nee na tamit li nga xam ni promoteur yi wax na ko maanaam nu delloo leen mbër bi nga xam ne def na recours joxe vingt cinq mille su gañee nu delloo ko vingt cinq mille Alioune Sarr tamit nee na na war na a nekk waaw lépp waxtaan la rek lépp waxtaan la gis nga àddina lépp lu fiy dox waxtaani pour mu mën a dox saa bu ñu yeewoo rek li ñuy def li ñuy liggéey fi ñuy dem ak li ñuy jëfla ak ñuy jëflanteel lépp démb bi ñu passé dañ daf ñuy jàngal tey pour ñu mën a améliorer gën a mën a jubanti gën a gën a mën a defar pour mën a avancer yaakaar naa côté loolu mu wax sol solgan pour xool nu ñu koy defee wala ci côté euh, xaalis boobu ñu wax tamit foofu yooyu yëpp tout est possible mais lépp daal nañ buñ ko yaakaar naa suñ ko laalee ci waxtaan mën nañ ci trouver solution ba nga xam ne nii dina am te bu amee kenn du si gaañu Hmm. tout est possible nag boobu noonu ak euh, waxtaan ba nga xam ne daañu mën trouver solution war na mën a dox tamit si diggante Pape de Fall ak laxaat bi nga xam ne ak Dieye bi nga xam ne nee ñu si AG bi bu mu ñëwee daal Pape Abdou Fall ak Dieye ak euh, ki nga xam ne mooy laxaat kenn yontewu sa morom loo xam ne lu yéeme la si diggante ay promoteur Babacar. waaw loolu de moom li ñu siy wax mooy kani rek muy Pape Abdou muy Dieye muy laat ak ñoom ñëpp mm, euh, ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi pour man. yaa ngi dégg te duñ leen jàngal tamit dara ci àddina ndax gënuñu leen koo xam mais xëy na mën nañoo sànni suñu xalaat rek ñun bu ñu man boog day su ma sañoon ay nit saa bu ñu séqee dara même bu fekkee dem nañ sax ba séqatuñ ko moo xam liggéey la moo xam ne mu mën a doon mais nañ fexe que moo am solo daal parce que a doon yaa ngi dégg te xëy na seen diggante rafetoon na ñu seqoon jàmm vraiment mu nekkoon image yoo xam da nga ko daan gis sa xol di sedd kon tey suñ demee ba gis yu mel noonu itam ah ñun du ñu neex du ñu gënal parce que li tax mooy ñun jàmm mooy li nga xam ne nii moom moo ñu intéressé moo ñu gënal lépp kon ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moom moo mën a jubale yàlla na leen yàlla dimbali ah bés seen ay xol ba ku ci nekk rek bu fekkee dafa am lu xaw a kii ci sa xol jëm ci sa morom nga bàyyi loola pour que ñu mën a joxante loxo bokk ndey bokk baay parce que ñoo bokk réew mi ñoo bokk li ñuy def ñoo bokkul lépp te yaakaar naa jàmm dégg naa de ci benn kilifa mu ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul noonu na jàmm gën àddina ëllëg yowmal xiyaam itam jàmm fa gën kon yàlla nañu yàlla defal jàmm ku mereeg nit itam xëy na mer mënta ñàkk mi ñuy ñuy jégalante rek te yàlla te yàlla tax quoi waaw loolu moom dafa am solo trop trop trop. Babacar ñu ñëw ci bilan yi bilan yi tey nag euh, sunu laam mi ngi ñëw ci bilan wu écurie Boy Bawal nee na écurie Boy Bawal daal ñoom instant bi écurie Bawal voilà écurie Bawal Boy Bawal moo nekk Olympique de Ngor ok écurie Bawal donc écurie écurie Bawal bi nga xam ni mu fa la wuli de nekk ak kéwél nee nañu ren moom seen seen affaire dox na bu baax ndax am nañu 18 combats 12 victoires ak 6 défaites dong waaw loolu moom écurie la bi nga xam ne nii mooy écurie Bawol boo déggee écurie boo xam nga écurie Bawol dafa am Bawol booloo am booy Bawol olympique dangoor la nekk moom donte Bawol Bawol la Bawol mbooloo mooy ñoom tafaatin Bawol bii nag moo jëkk fi la tafaatin nekkoon après la ber daaraam def Bawol mbooloo ñoom mangoor góor Diouf ak ay mbay Diouf numéro un ak xale yi di ñoom kéwél ak ñoom wulli des fi nga xam ne mooy bawal bawal boobu nag ñoom ñoo am 18 combats am 12 victoires ak 6 défaites waaye loolu bilan bu positif la boo ko xoolee bilan la bi nga xam ne wax dëgg yàlla parce que am na gis nañ fikri yoo xam ne ren ñu sax lu jege lii kon defe naa bu ñu defee lii moom bu doon examen la da nga naan kon réussir nañ ko ñoom macha allah kéwél gis nga ko moom nag dafa perdre combat ak Modou Dia yaa ngi dégg mu ngi newoon ci lancé bu doy doy waar waaye julli ba mu daan defe naa ren jël bi gën a rafet ci saison bii ji jeex defe naa moom moo ko daan ki nga xam ne nii mooy ambulance bu Thiès mu yëkkati boo xam ne ay xale nga ngooñal fa ak yeneen ak ñeneen ñooñu bu ñu leen wëree bu leen xale yi déggalee yaakaar naa war nañu ma def sol ëpp kon defe naa ñu ngi leen di féliciter ci seen résultat bi daal am na solo trop trop mais di ci nuyu wulli de moom nga Canada tëdd amoo moom voyage ko deex fi mu nekk nii moom. voyage boobu ngay tudd sax xam naa Babacar soo ko amoon di nga jël dem noppal tuuti balaa saison bi di ubbi. waaw waaw bien sûr xam naa faw Thialis defal ma ko sax DG faw mu kii ma ma dem. récupérer benn 15 jours ma ma dem Madrid waaw parce que moom mooy sama dëkk fa laa bëgg mooy sama équipe tamit kon DG loolu bàyyi naa ko say loxo. Babacar si kàddu yoon la ñuy dàkk sunu mbokk internet yi di leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu muy nuyu sama yaay Mère Sow di nuyu sama doom Mouhamed Diouf di nuyu Dadi Gueye di nuyu Astandine depuis Italie DG Bramba Chéri Khadija Diall di nuyu samay doom euh, bébé Fallou Mam Diara Penda Rokaya bébé Junior ñoom ñëpp maa leen di nuyu si Parcelles Assainies unité 26 Babacar. waa di nuyu waa Parcelles yëpp ah unité 26 waa Guédiawaye waa Pikine fépp fu mu mën a doon caaro yeeg jàmm gën a ne nuyu ñeen Sénégal yëpp. di ñaanal ñëpp jàmm di waxaat rek encore une fois le 27 àjjuma buñ ko fàtte ubbiti juma Masaalikul Jinaan parce que olof yaa ngi fa waaw lu def waxu ay di njàmbat du mën a ñàkk parce que ay sénégalais lañ ay taalibe lañu te ci réew mi lañ dëkk defe naa nag comme ni ma waxoon sànq rek magi Sénégal yii ñu am yàlla nañu leen yàlla sàmmal te fayal ñu leen yaa ngi dégg buñ jee lim dinañ juum moo xam fu mu ci mën a doon rek murit ba tijaan ba xaadir ba laayan ba ñaseen ba chrétien ba ñëpp parce ñëpp a baax te lii defe naa moom bokk na ci lu koy firndeel ma ciy nuy nag ku mel ni bëgg fàllu bu sëñ Abdou Karim Mbàkke nekk fii ci ñaar tali maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di ñaanal xalifa yi tamit ñu yàgg fi lool te wér mais ki nga xam ne nii mooy Xadiroos Njaay du ma ko fàtte ca Allemagne maa ngi koy béggee tuuti yaay Sarr soxna Ana Cheikh Bintu Fall moom tamit maa ngi koy béggee bu baax a baax ñoom Baye Sall fan a club Babacar bi tamit maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ñoom Grand Lay Jiga Cédric Mas Grand Mas ñoom ñëpp maam góor ja saaka jib nuyu naa ñëpp ñaanal ñëpp jàmm non calis ak jaww du mën a ñàkk ñooñu ñooy lépp bu dul ñoom dara du marché kon ñoom yàlla na yàlla yokk seen doole mais yàlla na yàlla yokk tamit doole ku mu mën a doon parce que parce que lépp a a dox fépp war a dox na yàlla def jàmm yàgg maar kenn du moom maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Fall monteur moom tamit cekk ci kim laa ko tuddee macha allah maa ngi nuyu bu baax a baax a baax. Kempes série ami saaxo kenn du moom maa ngi koy nuyu bu baax a baax du ma ko fàtte mais nag di nuyu sama meer maître Pape Sène maire commune Ndondol di ko bëggee bu baax a baax di nuyu waa Ndondol yëpp yëpp yëpp yëpp fàttewu ma leen di ñaanal ñëpp jàmm rawatina sama dëkk ba nag ak yaay. Aïcha Faye yaa ngi si biir bu suba ak